Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. ministère de la santé et de l'action sociale jot na benn information bu jógee ci benn structure médicale privée ne am na benn patient bu fa ñëw de nationalité française mais bi ñu ko seetee am na température 39 degré gorge bi di metti mooy put bi mais aussi bopp bi aussi di metti loolu joxe njort ne mën na nekk feebar bi xamante ne mooy coronavirus parce que loolu mooy signes yi xamante ne moom lañ joxe ci tableau clinique bi ñu gisee loolu suñu équipe yi dañoo dem immédiatement def prélèvement bi ñu defee prélèvement ñu yóbbu ko effectivement fu ñuy wax service des maladies infectieuses pour mën ko fa téye le temps que résultat yi génn patient boobu nationalité française la mais mi ngi nekk Sénégal depuis ñaari at ak ñaari doomam ak soxna dafa demoon dëkk France précisément fu ñuy wax Nîmes ci benn station de ski bu nekk dans la région bu ñu wax auvergne rhône nekk na fa ci période du 13 ba le février dellu ci Sénégal le 26 février Institut Pasteur bi ñu xoolee résultat yi xamante ne analyse bi joxe na ko wax nañ ñu ne résultat yi dafa positif mooy que ne jàngoro bi mu ngi ci yaramam bu ko defee nag taxawaay bi yokku ñuy wax ne ñi ngi leen di wax ne bu kenn paniqué parce que système de santé Sénégal man ngeen ko woolu ci stratégie bi xamante ne teg na ko en place pour circonscrire maladie déjà li ñuy wax cas contact mooy par exemple ñaari doomam soxnam ba aar ñi xamante ne ñëpp yaakaar nañ ne war nañ leen mën a vérifier déclenché nañ ma leen di wax ne tam organisation mondiale de la santé yëgal nañ ko information bi parce que loolu mooy procédure règlement sanitaire international ma leen di wax di leen yëgal ne situation yu mel nii li gën a nekk farata ci xeex bi mooy joxe information bu baax pour que donc euh, dara ba na mën a am si rumeur boo xamante ne yàq xelu nit te loolu nag yaakaar naa ne suñu premier partenaire bi war a def liggéey boobu suñu côté mooy ñi xamante ne ñoom ñooy tas xabaar yi mooy journaliste yi moo tax ma leen di demander organes yi xamante ne bëgg nañ accréditer ay journalistes ñu ànd ak suñu service de communication ma leen di yëgal ne mën ngeen rapproché wu de benn salle de presse ko mettre en place comme ça bés bu jot rek ngeen mën a am information bu baax à loolu lañ ne woon danañ leen ko yëgal ñu ngi leen di remercier bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.